parti démocratique sénégalais mu ngi rafetlu bu baax dàq bi ñu dàq élection présidentielle fukki fan ak juróom ci weeru décembre bii di ñëw. groupe parlementaire bi nga xam ni moo amal xeex bi ci biir assemblée nationale. jàpp na ni lii nag ndamu démocratie bu Sénégal. loolu tax ñu jëkkoon a taxaw demander une résolution assemblée nationale député yëpp woote ko muy pour ñu def une commission d' enquête commission d' enquête boobu installé nañ ko mi ngi ci liggéeyam ndax dañoo ñun nag ku xam parti démocratique sénégalais xam ni parti bu mës a d'accord ci ay waxtaan la. xeex ngir ñu dàq élection présidentielle leen rek moo ko tax a jóg mooy defaraat lënc lënc yi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci processus électoral bi bu ñu sukkandikoo ci député groupe parlementaire liberté démocratie et changement. dañoo jàpp ni anomalie yi ak rëq-rëq yu bari yi nga xam ni si gis nañ ko ci processus électoral bi ci yoon wii ñu tegu wuti élection maanaam candidat ci tànninu candidat yi. ci conseil constitutionnel ak rëq-rëq yi nga xam ne si am na wone na ni sunu système électoral am na ay problème tax na itam ñu bañ a amal ay élection yoo xam ne mënoon na jur fitna ci biir réew mi. défaillance yooyu yëpp ak rëq-rëq yooyu yëpp dafa nekk loo xam ne sii bu ñu ko bàyyee mu dem dana indi coow loo xam ne si dana nërmeel sunu démocratie ndax coow li door na avant élection yi da doon continuer ci biir élection yi te bu ñu élection woon ba pare itam coow bu rëy a rëy lay jub looloo taxaw. gannaaw ndam li nag parti démocratique sénégalais mu ngi woo acteur politique yëpp ak itam ñi nekk ci société civile bi ngir ñu amal waxtaan bu dëggu mën a indi ay coppite ci processus électoral bi dina tax itam ñu dem ci élection yoo xam ne ñëpp a ciy bokk dina leer te dinañ ko def ci jàmm.